الحمد لله رب العالمين موجي لله جاي ساخ ولا خيتاي سا سوبلاي جاي سيد لمن ياس موجي لله جاي ساخ ولا خيتاي سا سوبلاي جاي سيد الامين يس jambar Islam, ju Islam, bakhay ñu nax naam Sidi Lamin Ñas jàmbaari Islam ju sonn lislaam ñu nax naam Sidi Lamin Ñas de demna. xam-xam de jooy na Sidi Lamine Niass xam-xam bu selloon la yor te ku baaxoon Sidi Lamine Niass xam-xam bu selloon la yor waaye bàyyee nañu njariñ ku baaxoon si xol baa kalaaboon jëf yaa kaseloon wax jaa kaneexoon si di lamin ñas kër yëpp a nekkoon këram amul woon ci génn kër kër yépp nekkoon di benn nekkoon na lim mi béetoon Sidi Lamin Ñas daa formé aw gaay bañ dégg tey baay li man tanaax saay Sidi Lamin Ñas daa formé aw gaay bañ dégg tey baay lii man tanaax saay si di lamin ñas daa bañ ba xëy dem noteel bu daa am mu deeti nañ am si di lamin ñas daa bañ ba xëy dem noteel bu daa am mu deeti nañ am si di lamin ñas waaree mi wooy wooy bu leen mën a xooy allahu yooy yooy Seydi Lamine Niass waaree mi wooy wooy bu leen mën a xooy allahu yooy yooy Seydi Lamine Niass waaree mi wooy wooy mu leen mën a xooy allahu yooy yooy Sidi Lamine Niass tuubaak tiwaawoon ñaseenu laayeen man jaale naa leen Sidi Lamine Niass tuubaak tiwaawoon ñaseenu laayeen man jaalana leen Sidi Lamine Niass allahumi buur na def ko masruur ci barke Mansuur Sidi Lamine Niass allahumi buur na def ko masruur ci barke Mansuur Sidi Lamine Niass allahumi buur ندف كمسرور تبارك منصور سيد اللبن يس الحمد لله رب العالمين